bay we ji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw la bay we sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal baay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndeena ndeena ñëw na ndeeni doomi géwël la jàmm rek ah, de du amee rek jàmm am ah xam nga loolu de loolu daal du amee rek jàmm am baal wax ji ah sim doom laajte a joxe xaalis cay <laughs> kii tey sama waaj waaw sama yaay sànq nii rek moom ma doon wax. na ma damay toog suñu ne du ma ko dégg comme si que du ma jaatal. waaw pourtant sànq nag moom lay laajte. waaye ñu na. taxaw leen. taxaw jëm. foo jëm yéen. ci biir lañ jëm. ci biir lañ jëm. xoolal bu yéen bu yéen ni ngeen ma soofee yen ñaari paa yi. yaa nu gën a xamoon xamoon heure bi heure dalu la. ñun seetu ñu la Fallou Gabon la ñuy seet. fii Fallou Gabon newu fi. waay jàllal waay yow waay yow man eh eh eh. waay yow Fallou Gabon la ñuy seet kay. bon ay ay ay ay. waay yéen yéen xanaa yéen rap yéen. bàyyi nga poñere. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi nga poñere. sëñ bi ñu. waaye yow yow doon eh, eh, eh, sa bàyyi nga poñe. waaye fii bàyyi taxul sama liggéey laay def. yow mi ku ñàkk kersa nga de. li jënduma loolu laa. waay bàyyi kii waay bañ bàyyi yéen doon leen def doon leen. bàyyi kii kii sa bàyyi la waay. li jënduma man sama liggéey laay def nga sa bàyyi. yow xool yow mi ku ñàkk kersa nga. boo ñëwee yaa ngi sa bàyyi waay yow yow yow yow yow yow maa tey. dama bëri ji moo gën li ngay dama bëri ji. soo mel trop bien. man de ñooñu bàyyi wéy jëm bàyyi dee la. waaye bàyyi jàmbur. e eh, booy ñaa. waaw bàyyi leen ñu ñëw. ah yow ah waay. mais ni ngeen ma soofee mais maa leen xaar retour bi. li ma def ci aram bi dafa ko ci aram bi maa la gën a nekk màggatu mbër fot. hey eh, eh, hey koy waxat. yow yow dégg naa sax suñu la. ah ah. laa la la munaasan boobu ah suñu jigéen jaa ngi nii ndeysaan sama waa ji sama waa ko joxe sama waa ji sama waa ji na ci waaye gàccee ji xam nga xam nga ne sa ruus bi bokk tëb si yi ñaxtu rek su soog ruus bi ñu ruus doon nag ndax lay loolu wallaay ah noonu nañ la de xam nga lu ma neex ci yow mhm. da ngaa am fulla diñ mhm. waaw waaye na xaw ma noo bi ci sa immeuble bi nga teg ci buntu buntu kër gi moo ñu poñe. kanam bi sama kanam bu nuru amul ga rek. rak ma def te te te gis nga de naa la xamal dara de. Hmm. gis nga mbër. yar ko ci kër yar fukki naka ko tan dañuy lekk rek. <laughs> kii da ah. amul jom dara ah, xaw nañoo gaañ. mooy leen ngeen ah. naan caat. may sa ñoom papa ndox. bilaay soxna si. Hmm. xaw nañoo jàppante ak mbër mi de. ah mbër mi poñe ñu dugg si mu mën a ñu ràttu poñe man sama gulli nga xam ne am na problème. dafa soxor kii kii xam naa tuutal combat day soxor rek dana xam ne du mën. ñàkk fii si poñe sa morom yi ñàkk fii mun ko weesu de poñe sa morom yi bàyyi. su dee dem mu iskante ñu rek. caat léegi daa màgg sax moom. caat léegi jàpp la. ah, ah. ah caat léegi nii caat léegi nii. day sax tubaarkàlla sax caat waaye. caat bi moom bàyyi dem yàkkamtee naan. li ah, nekk ci bëllam bi moom rek ko ko xam de ah Thiel. waa mu ñëw wuyu. d'accord. Eh, nga la trop. ah bànneex de mate na ko. <laughs> mate du du sa bànneex yow kese de. wute naa ko sama la ci kër la ñun ñëpp. eh bàyyi dama ne. Ah, mooy sa bànneex fële na waaye. salaamaaleykum. mooy ñun mooy sunu bànneex fii ñun. Mm-hmm. Mm-hmm. kii du Ndene. Sum. nañ def. waa jaa ngi nii de. waaw yéen a ngoog. ah wéy da ko mën a jox ab xaalis. ndeysaan ñu ngi lay ziar baax. waa ji namoon naa leen de. walaay ñoo la raw. mbaa yéen a ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. ah naka jamonoom ni mu tëddee amoo leen ci benn gàllankoor rek. ah ah ñun de. Mm-hmm. benn gàllankoor rek la ñu am. muy daal sunu sabar yi fi mu toll nii mi ngi commencé sa fukk. sama cóol yëpp wàcc na ma. Mm-hmm. waaw sama cóol yëpp wàcc na. Eh, programme bi daal laa yàqam di mu tëj ma. ndax mooy doxal samay mbir. waaw bon benn problème boobu laa am ci àdduna. Mhm. amatuma beneen problème. lay day daanaka da ngeen a fekkoon ma war a génn nii sax. Hmm. ndax euh, sama xarit bi Ablaye Fall. waaw moom laa waroon a ñëw seeti ji nii. Ablaye Fall ndeysaan ku baax. waaw moom daanaka dafa am ci yenn procès yu nekk. Hmm. ci procès yooyu ci laa leen war a dugal. ñoo ngi ci biir procès ñun. waaw a nga ca biir. <laughs> tey kan. procès yi daanaka lépp waxoon naa ko nabu. Hmm. que ni bu ngeen ko fi fekk bu ngeen ñëwee dina leen xanaa dama leen koy tënkal rek. waaw mercredi wala jeudi. Mhm. si la war a démarrer bu ngeen ñëwee rek moom dina leen expliquer nu muy demee. incha allah xanaa di gën a kontaan naa ci yéen. Mhm. bu loolu weesoo tamit. Mhm. Euh, mu am benn mbir boo xam ne fan yi maa koy gis ci internet bi. muy lan. muy seen mbokki géwél yooyu nga xam ne ñu ngi def marche. ci jamono ni mu mel. waaye yéen bu leen ci bopp. ndax yéen comme am ngeen ma am ngeen nagu mi. daanaka seen dara méttiwul. ci lu wér nag ba tax na fu fu fu yu mel noonu amee. waaw ah toog leen seen kër yi. jamono mhm. léegi dafa doy waar. te yéen dañoo faral di am ñu xam ne nii dañ di raaxaloo ci seen i mbir. Mhm. ndax ñaara ngi nii ñoo xam ne dañ leen di ton ci Sénégal. muy ñan muy ab géwél ak Baye Fall. Mhm. lu mat a xam. waaw ndax ab géwél. léegi ku jóg way ku jóg nga Sambay Mbayaan ne ab géwél la. Baye Fall tamit. ku jóg tux say bagage tux sa Malboro. ne am Baye Fall la. am na ñoo xam sax bu ne mal bu xam nga du xam. Ah. xobi yomb. ma ngi noonu. Mm-hmm. te Cheikh Ibrahima Fall. kër yowul nag yoonu Baye Fall ngir ay caaxaan. Mm-hmm. na ñëpp ma euh, bàyyi xel loolu. Mm-hmm. beneen bi ci topp. yéen ay référence ngeen. waaw ku ci mel ni Père euh, Vieux Sëñ Faye. Doudou Ndiaye Coumba Rose. tey yóbbu nañ histoire. Tamba Jabara Samb Tamba Jabara Samb moom laa jiitu noppeegu ma. ma ngi lay mi ngi noonu kon yaa ma gën a xam seen mbokki géwél mm-hmm. mm-hmm. bu ko defee wéjji. Mm-hmm. ah ngeen bàyyi loolu xel ne yéen moom seen comportement moom. vraiment ça me plaît. waaw ah, may kontaan ci yéen fu mu mën di euh, li nga wax yëpp dégg nañ ko. te incha allah lu ñuy li nga wax nag man dara rek laa ci sama kàddu. muy mbiru internet. nuyu internet man moom dama ko ragal. wallaay wéy ndax. jar naa ragal problème yi ñoo ci bari. moo tax daal ñëpp maa ngi wax Sénégal yëpp nañ ko moytu. waaye nag. Hmm. Baye Fall. ak ñi nga xamante ne kii mu boobu bokkuñu nag. Hmm. bokkuñu. Hmm. waaw ndax day mel ni yàlla ak yàlla. ba dëgg yàlla kontaan nañu baax. ndax uh, bi ñu fi indee. li ñu fi wax njariñ xam naa moom message bi nga jàllale. du mhm. ko Baye Fall déggee danañ kontaan lool. bàyyi ah, mel. Mhm. xam naa nag amuñ toogaay. Mhm. ndax maag euh, saawaay ji. daa fu ñu war a yegg léegi nii. waaw xam naa dañuy ñëw rek yegg ca loola. di leen déggante waat ñëw ci loolu. am naa lu ma leen fàgg dem rek. Ah, bàyyi ñëw dem rek. ma woowaale caam gi bàyyi ñëw dem rek. Euh, léegi nan xam ngeen li ñuy def. Mm-hmm. jàpp leen ci lii ah lii lii nag duñ ko laal. jàpp leen ci ah duñ ko laal waaye duñ ko laal. jàpp leen ci rek ah déet waaye lii duñ ko laal. ah déet déet lii moom. ah déet lii moom. Eh, eh, eh, lii moom ah déet lii moom. ah déet. bàyyi ne rek. waaw ñu ma samaloon nag. ah waaw xam naa ko dañoo nekk ci yoon. ñoo ngi dem te ñëw lu ñu del see mu gën fee neex ñoo ngi dem te ñëw. mu gën fee ne ñoo ngi dem ca yow. baara nga xaaral ci bunt bi ma ñëw dégg. léegi wécc xaaral leen foofu booy ñaan génn oto bi. ma eh, yóbbaale leen kooku kooku. ah xaaral kooku kenn du ñu ma yóbbaale leen kooku dafa soxor kanam ñu amul du dugg ci moom. ceeb ak nee dañoo neex sama xarit yi. nee na jàppal ah, xaaral ma woo caat bu ko defee mu gën a yomb pour euh, booy ñaan génn oto bi. caat. Ah, caat. Ah. eh dama bëgg a dem xooli Ablaye ci procès yooyu ñu nekkoon moom laa bëgg terminer ak ñoom fi ñu doon xool euh, waxal boo ñaan mu génneel ma oto bi bu ko defee moom mën a yóbbaale sa ñoom papa ñeneen d'accord jërëjëf ah, non ma yàgg chéri du ma yàgg balaa ngeen di dinaa ñëw dañuy finish ay ci finition yi ndaw rek ci lañ ñëw buñ ko finition rek man maa ñëw léegi bon ci bay we ji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw laa bay we ji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay we ji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw laa